ñetteelu réunion bi nga xamante ne amal nañ ko mu jëm rek ci pilotage defaraat bërëb yi nga xamante ne si lañ war a amalee épreuve sportive JOJ 2026 yi mu nekk ab bi nga xamante ne comité d'organisation bi daal na def le point ci fu mbir yi toll euh, stade bi nga xam mooy stade Iba Mar Diop ak piscine olympique ak euh, complexe Tour de l'Oeuf ñaari bërëb yooyu nga xam dañu am solo lool ci wàllu nga xam ne Sénégal dëgmal na ko muy organisation Jeux olympiques de la jeunesse AGEROUTE présenté ñu nag fan lañ ci toll ci travaux yi ñu gis ni lépp pare na dem nañ ba tànn entreprise yi nga xam ni euh, ñoom ñoo war a def euh, liggéey bu ci nekk y compris yi nga xam ne mooy yi ñuy war a tabaxal maire yi ci gox-goxaat yi euh, liggéey bi ci weer ci semaine yi di ñëw danañ ko lancé. ngir rek bi les organisation mën a jaar yoon comité d'organisation bi dafa fas yéene ak ñi nga xamante ne ñooy collectivité territoriale yi. collectivité locale yi engagé wu nañu pour jàppale ñu engagé wu nañu pour lëkkaloo ak comité d'organisation bi pour mobiliser seeni jeunesse parce que ñun mën nañu def li nga xam mooy tax sportif yi ak sport bi mën a dox waaye la nga xam ne mooy Sénégal tax Sénégal ak sénégalais gis ci seen bopp ñoom la ñoom la ko yàlla dénk. te loolu tey ji engagé wu Jeux olympiques de la jeunesse yi dinañ ko amal fanweeri fan weeru octobre jàpp fukk ak ñetti fan si weeru novembre 2026 jamono ji nag ñu nekk ci wàccaay gi buñ sukkandikoo si comité d'organisation bi liggéey bu jëm si defaraat yi li infrastructure moo ngay avancé bu baax ngir rek mën a amal bile compétition ni mu waree